Euh, vote yi au niveau de de la diaspora moom la ñuy xaarandi ak ñoo xam ne aussi certains contentieux yoo xam ne mais contentieux yi moom ça c' est le conseil constitutionnel qui aura le dernier mot. Mm-hmm. après naturellement euh, les tribunaux vont essayer de voir maintenant. de les départir avant de remettre les choses au conseil constitutionnel. Mm-hmm. d' accord ñu dalal suñu gan ni ma ko waxee woon sànq Waly Fall di conseiller spécial du président de la République nekk membre ci euh, Benno Bokk maa leen di di leen gërëm a ah, wax. di mhm. jégalu ci retard bi ndax. Euh, <laughs> embouteillage ndax mhm. amul solo daanaka rawee ñu loolu bari. ñu ngi lay jéggal ñu ngi lay jéggal ñu wéyal euh, Pape Sané également la même question qui revient euh, attente bi lan lay augurer fi mu nekk nii si ñu gisee ne délai bi ñu impartiroon c'est-à-dire 72 heures pour publier les résultats provisoires ñu dàqaat ko ba ëllëg. Ah, en fait bon ñu dalal sunu invité déjà euh, report report publication yi. Euh, man dama jàpp ni que dañu commencé depuis un certain temps à chaque fois qu'il est question d'élection de ou question électorale lii nga xam ne moom la yoon fixé dañuy gis ni que dañ koy jalgati mooy buñ ne euh, soixante douze heures la daañu fexe yokk ci benn jour ainsi de suite ainsi loolu yëpp bu ñu leeralul nit ñi les reports là parce que gis nañ ko ci local yi amoon na fi euh, léegi la même chose se poursuit alors que voilà on est euh, ci benn climat bi nga xam ne climat de suspicion la et tout donc je crois que il s'y ñu communiqué woon xamal na ni ne que effectivement tey la woon mais li yëg li yëg lii moo tax ba. Euh, ñu ajourné ko jusqu'à telle date loolu daal comme on en démocratie et que les acteurs fii au Sénégal ne se font pas confiance. ki ñi wóolu ba nga xam ne mooy l'arbitre je crois que c'est à lui euh, des règles de jeu de rassurer tout le monde mm-hmm. bu nit ñi di ko xaar mu génn xamal leen ne que tey mënul nekk lii moo tax mënul nekk moo tax ñu jëmale ko suba. d'accord wàllu ñu ñëw avant may ñëw ci Issa suspicion yi ñu nemmeeku yëpp depuis proclamation yenn résultats yi mu am ay report pour la proclamation des résultats provisoires est-ce que tey euh, loolu day augurer ne euh, tey euh, si contentieux la ñu nekk instant waaw jërëjëf Awa di nuyuwaat sama ñi nga xam ne laa fekk fi tey fii ci plateau bi alors euh, bi may egsi dégg naa effectivement ñuy wax ci waxu reportu publication des résultats par la commission national mm-hmm. apparemment dañ ko reporté ba. demain ba ba deux mm-hmm. euh, fi ma d'accord ak Pape euh, nit mun na bëgg dara yàlla dogal mais lu am solo c'est li am solo mooy communication. il faut jamais laisser un vide su amee lu tax délai ba ñu waroon def dara ñu si def da ngay expliquer askan bi ne lii moo tax soo waxee li nga xam ne xel mën na ko jàpp ñëpp day nangu ne ah yokk sax vingt quatre heures pour résultat yoo xam ne day am du am benn sikki sàkka doon na loo xam ne sax moom mooy jàmm réew mi mais aussi su loolu weesoo je crois que ni élection yi demee ba fi ñu toll nii. Euh, du ñu ne c' est parfait à cent pour cent mm-hmm. mais je crois que euh, Sénégal wane na encore boppam ci wàllu démocratie ci wàllu organiser élection su ñu tekkee tey dañu am plus de cinq cent quatre vingt sept euh, commune ñu ne peut-être am na benn walla ñaari recours kooku aussi tamit dañ koy sant yàlla parce que lépp mun na bañ a yemb mais li ëpp solo vraiment pour pour pour pour wax loolu rek c'est-à-dire gëm naa ne la tax ñoom xëñ na officiellement waxaguñu lu tax ñu ñu reporté mais dama jàpp ne suñ ko defee rek c'est parce que dafa doon loo xam ne dafay gën a dëgëral gën a euh, ñoñal résultats yoo xam suñ ko génnee képp kuy sénégalais te nangu dëgg da nga ci ànd li ci tax nag ñu bàyyi le processus électoral continuer ba fa muy mujjee ba ñi nga xam ne ñoo nekk ca bopp ba ñu publier de manière définitive les résultats après nag nit ñu war ci mën tirer les conséquences. d' accord euh, est-ce euh, que euh, voilà ñu ñëw ci ne retard am na naa mi ngi koy wax mais on n'a pas donné de raison ne lii moo tax waxaguñ ko te dañu ne waxaguñu sax jour fixe dañu ne jeudi ou vendredi. Mhm. déjà loolu sax laa ko bëggoon laaj déjà parce que est-ce que nekkuñu ñun ci système bu archaïque parce que boo xoolee am na ay dëkk yu baree bëri daanaka jour scrutin bi rek lañ la naan. kii dina am tant de député xëy na même bu nekkul chiffre exact bi sax daanaka li ci voilà en France par exemple ñun fii nii euh, heure locale ay vingt heures vingt une boo xoolee ñëpp a ngi lay wax chiffres yi Macron war a mën a am yi nga xam ne moom la ñoom euh, Marine Le Pen ak Mélenchon war mën a am loolu yëpp yaakaar naa tax na ba man ma jàpp que ni système bi ñu nekk quand pour man see déjà dépassé. Mhm. bureau de vote yi boo xoolee da ñëw si benn bureau de vote boo xam ne dañ koy taf ci bunt bi nga ñëw di liir te bu ma juumul yeneen dëkk yi xëy na mos ma fa dem mais tu reçois des informations ku mel ni France par exemple mais euh, daanaka ci yenn parti parti bu si nekk dina am même des journalistes yoo xam ne dañuy nekk ci seen euh, nu ñu ko mën tuddee voilà seen QG yi di mën di jot résultat yi nga xam ne mooy génne ci bureau de vote yi beneen bi topp mooy fu mel ni APR par exemple mën seen représentant yi mënoon nañ yor benn machine boo xam ne ku nekk ci ku nekk di siège da ngay yore sa machine résultat bu génnee brusquement da nga koy dugal ci machine bi mu jàll ci ci kaw euh, yeneen parti des am ko bu boobaa daanaka pour man bu ko waa Sénat defee waa euh, coalition yi nga xam ne ñoo dem ci élection yi def ko les observateurs def ko ku ci nekk waxuma sax par centre mais même par bureau de vote ñu yore ay ordinateur di ko link. Mhm. ba nga xam ne tey résultat bu wadd rek di nga ko mën a dugal ñu jot ko ci kaw. yaakaar naa kon élection bu amee le mais ay résultat boo moytuwul dina war a mën a tombe même bu tombewul sax nit ñi l' essentiel mooy même bu officielul nii nit ñi nañ xam ne kii am na temps de député. kii am na mhm. temps de mais fi mu nekk nii ba léegi kii naan am naa lii kii naan am na lii daanaka pour man moom war nañoo mën a changer système bi nga xam ne moom la ñu nga xam ne wàllum këyit la bind ci ay këyit euh, coow li bari ci taf ci bureau buntu bureau de vote yi ñun ñii ci biir taw bi dañu doon taxaw di niit ak sa ay sa ay téléphone pour mën a photo feuille bi ñuy taf ci buntu bureau de vote te pour man loolu war nañ ko mën a dépasser war nañ ko mën a dépasser mais Georges tey jii ni mu ko waxee avec euh, retard bi ak li ñu nemeeku camp bu ci nekk di approprier wu la victoire est-ce que li ni mel doute boobu du am leneen loo xamante ne dina ko jur tey jii euh, au finish suñu proclamer les résultats oui mais loolu loolu c'est-à-dire euh, de la publication day day yokk sus climat de suspicion bi. surtout euh, boo gisee boo liiree le dernier communiqué bi nga xam ne moom la Yewwi Askan Wi ak wàllu bind nga sentir que ne ñoom pour ñoom dans leur tête le pouvoir est en train de manipuler ou bien de manigancer pour sortir victorieux de ces élections là en tout cas sortir majoritaire donc report bi loo si yokk rek boo si yokkee benn jour wala même quelques heures climat de suspicion suspicion bi day gën a yokku et man li mooy que. Euh, xaw ma yeneen coalition yi de ay euh, yeneen coalition yu ndaw yi nga xam ne ñoo am ay peut-être euh, <laughs> des scores vraiment minimes mais lii di grande coalition yi comme Benno Bokk Yaakaar Yewwi ak Wàllu force ñoo je suis sûr que bureau bu nekk amoon nañ fa benn représentant au moins mhm. parce que ils ont le personnel bu ko mën te wóor na ma ne tamit dans leurs différents QG amoon nañ fa Euh, benn centre de données boo xam ne mënu nañ si am à peu près. Mhm. li xew si bureau de vote nekk Sénégal ak bitim réew. Mhm. ça moom c'est sûr maintenant Issa wax na ko léegi bu dee si si yenn yenn réew yi vraiment de l'après-midi dès le soir bu ñu tëjee bureau de vote rek mën nga xam déjà à peu près ñaata nga mën a am. Mhm. ñoom fu ñu nekk nii peut-être c'est la guerre des chiffres naturellement comme ni mu ko waxee mais ku nekk si ñoom war nga xam à peu près à peu près. li nga mën a am ñaat député nga war a mën a am. Mhm. léegi nag forcément it euh, di nga bàyyi benn marge de manœuvre pour ne au cas où. Mhm. mais boo calculer rek ñoom ñëpp am nañu chiffre département par département. parce que amul benn bokk yaakaar tey mënul am département fii Sénégal boo xam ne am fu woon représentant wala benn bureau boo xam ne gisoo fa représentant te représentant yooyu ils ont répercuté les les les résultats PV yoo xam ne ñoom la ñu validé PV yoo xam ne moom la bureau de vote te PV yooyu peut mën na am euh, ay différence Yewwi Askan Wi ak Wallu tamit amoon nañ des branches un peu partout donc man je ne vois pas peut-être ils font maintenant ce qu'on peut appeler un dilatoire pour jéem yokk mais loolu yëpp c'est pas bien parce que day gën a tax nit ñi commencé di am ay suspicion naan est-ce amul lu ñuy préparer est amul njuuj njaajul boo xam ne moom la ñu lal mm-hmm. et puis euh, pour jéem a parce que encore une fois le communiqué de Yewwi Yewwi ak Wallu ñoom wax nañ ko déjà il est en pouvoir est de préparer quelque chose pour def lépp pour am une euh, certaine majorité d'accord avant may ñëw ci Pape Wale est-ce que le problème ne vient pas de Benno Bokk Yakaar qui s'est autoproclamé vainqueur le jour même du scrutin à zéro heure et se substituer aux autorités qui devraient le faire oui mais kii euh, Awa nos amis en face aussi ñoom tamit ils sont ñoom tamit ils sont autoproclamés vainqueurs xam